kat yi moom bañ na ko léegi bu ñëwee ci làmb ja mën naa def ci man 30 minutes man rek lay way doog a jàll way keneen amoon cofe lool ci nit di bëgg làmb di ko dund te it bëre na daana way ba yàgg mu ne dama leen di way mais mënu leen ma ci mbappat yi daa laaj séer daan ñëpp waaw moom daanaan la woon waaw wayli wayli la ba mu taxawee fii ne sé wolof yi jàng leen way sinon séeréer si dinañ lamb lamb nangu làmb ji boobu ñoom mayee ndeem ak ndey faat aaduma jëli meluñu nii mais léegi xàmmeetoo wolof ak séeréer ñëpp ay nju te boobu wax na ko te bi ñu wax moom loolu moom taxul de ndax moom daanaan la moom kenn mënu koo tee woy fu mu dem way yàllaa ko mayoon mu a way lool baax lool di ko ñaana rek moom it moom sama xarit la woon euh, maanaam daal man aw ma noonu ndax xooluma ko man gisuma noonu ñoom ñëpp samay nit lañu di leen ñaanal rek yal yàlla xaral jànna euh, yal na dee di noflaay ci ñoom yàlla mën na ko yàlla na ko def waaw dañuy rafetal rek ba baa ñu leen di fekk. foo xam ne foo ko kupp mu fay la si nga ba ci ndéem si yàlla ndongoloo ci loolu la leen toqi woon ñoom mën nañoo way sax te doom aw kat bu ne der rek ndënd yu tontu ñu wayaat ndax yàllaa leen may loolu doon la daana way ba yàgg muy ree li muy ree moom moo ko xam xam na ne relève am du yomb ñu ne ran lay ree fekk li muy sentir la moom day daaneel sax boppam. waxuma non seulement mel ni moom mais aw ko woon sax yombul boo dul daanaan doo ko aw kooku jagle la lu ko yàlla mayoon la te ni mel fii noonu la mel Gambie xam moom moom Sénégambien la waaw amee fii famille noonu amee famille Gambie am fa kër doon ku baax nangoo sonn nangoo togg jox jaame yàlla yi lekk te bu ñu amee ñaari ku jóg mais nangoo loolu joxe ñam te ku ne xam ne joxe ñam aljanna mi ngi ci mais relève am du yomb xam nga li ma la wax toujours nga ñëw ci làmb ji dafa dafa manqué làmb te xam nga baat bu neexul ak way yu neexul moom daal yu xata waaw day métti bopp waaw day métti bopp waaw aadama ma jamaa ngay samba jay laña samba corofal sidi barxam asu jànxay yaayam baay ñas ablaay baayam ku la neeti maa la gën naan ku la yar ànd dagan na tàggoo dagan loo ci def da koy teg ci wey day nee la kumba kaay birima yendoo yendoo naan ay sa tàggoo du sabaat faamaat yoon maa sey maa barafal bala gay teyo naa masataale njaay masataale njaay gaw ki gaw ay alaaji bu saaxo dafa daan wax ni boo fekkee kuy jooy bu ko ne bàyyil jooy da ko naan dóor bàyyil dóor yi